loolu mu bokk mos ko weer rek boppam ba weer rek. nañ ko essayé weer rek mos ko rek. weer kenn ku ne daal fexe ba régler sa bopp rek. mos ko weer rek mos ko weer rek. ñëpp defandoo ko. ñëpp defandoo ko. bañ ba gis muy saf. ba mu ban gis lu muy saf. dootuñu kon de duñ ko bàyyeeti. duñ ko bàyyeeti de. de. dana neex neexaay boo xam ne. dana neex neexaay boo xam ne. ñëpp ku ne yiw. ku ne rek yiw.